jàngale bi nag ñëw na gannaaw bi nga xamante nag si atum 2019 weerub septembre nag defoon nañ ab jàngale bu toll ci fukki fan ak ñeent jàngal ay jàngalekat yi nga xamante nag ñoom dinañ mën a dem jàngal nit ñi si wàllum indi jàmm ak def saafara si ay histoire yi nga xamante nag ñu ngi am si réew mi ki nga xamante nag mooy kunle àddina yi moom nag moo nekk country representative bu UNFPA moom nag wax na naka la jàngale bi amee solo si ay kàddoom wax na lu waral jàngal bi nag mooy nekk pour ñu jàngal nit ñi si ni ñuy mun a xamee histoire yi ba pare tamit mun a koy indil saafara si réew mi lii nag dina jàppale ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jàngal pour ñu mun a am xel ak matuwaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo. pour di mun a xam yeneen histoire yi nekk ci réew mi lii nag mun na mooy wàññi histoire ba pare tamit indi yokkute ci réew mi. ki nga xamante nag mooy Serafine Wakana moom nag moo nekk UN Resident Coordinator ci réew Gambia ci ay kaadam wax na nag démocratie bu nekk ci réew Gambia nag dëgërangut moo taxit nag soxla nañ li nga xamante nag mooy bu ñuy waxtaan ak gaay mun la nay leeral ci li nga xamante nag mooy indi jàmm ci réew mi. moom nag mu continuer di wax ne nag jàmm su amul ci réew nag du mun a indi yokkute moo taxit nag ñoom seen kuréel bi dinañ continuer di jàppale nit ñi pour ñu mun a xam li nga xamante nag mooy jàmm mun a indi li nga xamante nag moo nekk yokkute si réew mi te ci lii nag duñ bàyyi kenn ci gannaaw. jàngale bi ki nga xamante nag liñ ko teg si loxoom pour mu ngénte ko di minister of interior ki ko fa teewal nekk pam leen permanent ci Assane Tangara moom nag wax na ni nag seen jëwriñ bi dinañ jàppale nii pour mun a indi jàmm si réew mi. si ay kàddoom wax nag nguuri Gambia li leen dëggu mooy nag pour indi jàmm ba pare tamit jox nit ñi seen àq ak si réew mi pour mun a bàyyi nit ñi ñu mun a wax ba pare tamit pour mun a indi jàmm si réew mi. man suma jëwriñ bi nag dinañ continuer di liggéey ak yeneen jëwriñ ñi nekk ci réew mi pour mën a indi li nga xamante nag mooy yokkute ci réew mi ki nga xamante nag mooy Bakary Sonko moom nag nekk na ab ndaw bi nga xamante nag bokkoon na si jàngale bi nga xamante nag ñu ngi ko doon def si atum 2019 moom nag wax na naka la jàngale bi amee njëriñ si ay kàddam wax ne nag jàngale bi jox na ko xam-xam yu bari ba tax na nag moom mu doon lëkkaloo ak ndaw yi nekk si réew mi ba pare tamit yeneen ndaw yi nga xamante nag ñu ngi nekk si bitim réew mu continuer di wax ne nag lii. bokk na ci yokkuteem mu ne nag moom daf daan bëgg di indi li nga xamante nag mooy yokkute ak jàmm si réew mi waaye nag amatoon num ko doon defee ba projet bi bu mu ñëwee si la mënoon a tax nag ba mun a indi lii si réew mi. jàngale bi nag wax nañ ne dina am lu toll si juróomi fan ba pare tamit wax nañ ne lu toll si ñaar fukk ak juróomi nit si bés bu nekk nag dina bokk si li nga xamante nag mooy jàngale bi si xibaari ko ci bon ma fii si Paradise TV Awa Touré